pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi yegg nañu ci mu di gis-gis tay ji li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci pexe yi nga xamantene ji nas nañu ko ci réew mi ngir war caa jaarale doxale ci ñak gi ñu fasiyene amal ñeer um, ar askan wi ci wopi coronavirus ji ñu naan ko ci tubaab stratégie nationale de vaccination anti Covid 19 démb la ko jébbal njiitu réew mi dañu koy waxtane tay ji ñoo ngi ci jokko bi ak docteur Amath ñang moy président ordre pharmacien du Sénégal docteur maa ngi lay nuyu.

Euh, sama classe gi pour ñu tekki la ko day jafe noo ñu ko mën a tënkalee ngir ñu mën a tekk waxtaan wi. waaw loolu dafay tekki maanaam pexe ak ay jumtukaay yu ñu war a mën a jëfandikoo ngir mën a aar nit ñi ci jàngoro ji nga xamante ni moo lëmbee àdduna da nga xamante boroom xam-xam yi ñoo koy fekk ak ñi nga xam ñoom ñooy jiite réew mm-hmm. pour que ñu am vraiment euh, produit vaccin boo xamante ni dana méngoo ak.

dañuy daw uti vaccin def yëpp léegi nag si cadre boobu nag la ñuy tegee stratégie ginnaaw bu suñu kilifa yi euh, président de la république ne on va vers le vaccin et stratégie pour que ñu mën a vacciner si lu mu gën a gaawee ñu ko aajoo pour mën a arrêter mbas mi stratégie nag suñ ko waxee fànn yu bëri la mm-hmm. am na bu concerné produit bi mooy vaccin yi yan vaccin yi war a jël si yan anam lañ ko war a jëlee yan garantie lañ si war a teg yooyu am na fànn boo xam ne mi ngi tegu si logistique bi suñu ñëwee naka lañ koy manager transport beeg ñu koy garder parce que vaccin souvent sedd lañ koy denc. Mm-hmm. am na stratégie boo xam ne mi jëm si communication maanaam ni ñuy waxtaanee suñu askan ba rassurer leen maanaam ba dalal seen xel dalal leen ñu mun a dem su vaccin bi ñëwee vacciné wu correctement ak stratégie boo xam ne tamit ci financement bi un peu mun nañ xalaat ci financement innovant parce que tamit état.

ñi gën exposer exposé tamit plus de 60 ans. Moi mooy ñi cibles prioritaires. voilà ak comorbidité nga xam dañu am tension ak souvent sont prioritaires donc yooyu yëpp dañ ko def ci stratégie stratégie bi très bien jërëjëf docteur ci leeral yooyu ma dem ci docteur Amath Niang docteur Amath Niang dégg nañu ci xibaar ñu foowee ci euh, foré ci presse bi bon ma cité ko journal Source A moo ko bind euh, ci ne stratégie de vaccination boobu yéene ji moo di eh, ci phase bu njëkk bi ñu ñàkk lu mat ñetti millions ngi doomi aadama ak genn wàll trois millions cinq cent mille personnes ndax jàpp nga ne mën na nekk waaw bon je pense que lu mënta nekk moom daanaka bëriwut

ñi nga xamante ni également ñoom décideurs yi ni également communicateurs nous ni également ay ay parce que stratégie bi li avons ëpp solo li communication jokkaloo bi am euh, ñi def ñuy borom xam-xam yi war wax population la population bi je pense que loolu moom mission C'est hmm. loolu nag dafa am euh, taxawaay bu ñu ci war a def boo xamante ni ñu porter la bonne information et que population bi dem ba yëg ni lii njëriñam la et que ñun ñëpp buñ ko doxalee dina dem donc je pense que dina dema dem ba sax am benn enthousiasme maanaam benn benn cawarte buy am ci diggante askan ba nga xamante ni ñëpp boobaa dañ ko mën a dañ ko mën euh, voilà euh, justement loolu dañ ko seetlu maanaam gars ñi dañoo teel a du muy vaccin bi te sax yegg gis li gis-gis lu waral loolu waaw li ko waral mooy en fait

mooy les professionnels de santé ñu éviter nit ñi nga xamante ni dañuy am am dégg-dégg dañuy am am ay ay ay ay ay yëg-yëg ba di ci wax di ko porter ci population loolu dafay indi ji si jaafoo bu boobaa population bi doon xam fan lay taxaw je pense que la stratégie mooy consister wut ay mesures fermes ñu war a communiquer communiquer ci te bu ñuy communiquer ñu indi effectivement dëgg gi nga xamante ni nii moom moo war a taxaw ñu xamal leen lan mooy vaccin bi naka lay doxee ak aussi yan garantie ak yan efficacité la am ci population pour ñu doxal je pense que loolu bu ñu ko amee hmm. euh, li ci des pour que population bi ñëw ànd ci lu yomb la parce que nit koy euh, nit koo bëggal wér gi yaram dafa avant nga koy bëggal moom moo ko njëkk bëggal boppam hmm. loolu leer kon loolu jàpp naa ne la première stratégie la le premier défi Madame, jàmmarloo bi ñu war a njëkk c'est le défi de la communication très bien docteur Amath Niang jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax docteur euh, Yérim Diop

ça va ensemble. Mhm. c'est-à-dire amul lu gën a c'est important que que ñu rétablir dëgg gi ci vaccin parce que li wóor mooy vaccin du rey ñun ñëpp man ak sama morom ak yaay yi nekk Sénégal yóbbu nañ seen doom ñax leen. Mhm. à la limite seen yaram may tàng ci bëccëg boobu après mu jeex te vaccin moo fi génne polio poliomyélite maanaam feebar bu garab di loolu la fañ loo xale yi. Mm, mooy lompañ gi mais mais dogguma la docteur mais loolu it laata population bi di adhéré. waaw moo tax daj nañ ci lu ne ay programme élargi de vaccination sensibilisation beeg fu ne taf nañ fa fu ne communiquer nañ fa fu ne théâtre nañ fa ngir nit ñi mën a. nangu ne lii seen njëriñ la. déjà est-ce que ah, allez-y. est-ce que tey mm-hmm. mën gën a yomb. Mm-hmm. pour gars yi gën koo accepter parce que ay mag surtout ñooy les premières cibles. Mm-hmm. nga xam ne ay kilifa lañu seen xel mën na ko nangu mais il faut comme ni ko Amadou waxee ñu wax leen wax ju leer ju tegu ci ay preuve factuelle scientifique te vaccin yi Covid bi bu ñu leen tàmbalee defar ba léegi les inform informations yi ñu ngi siy jot de façon factuelle et continuelle te looloo tax sax seen autorisation gaaw du ay autorisation ay kii la quoi autorisation d'utilisation d'urgence en attendant ñuy dajale xam-xam yëpp pour jox leen vraiment le statut

ñun suñu yaay la ak suñuy doom ak ñun ak suñuy maam ak suñuy yaay kenn kenn nag yéenewul jox mbokkam lu lu lu bon. kon il faut qu'il y ait qu'ils confiance à notre système de santé kii nga xam ne rek suba ak ngoon dañuy yëngu pour ñoom. comme ni mu ko waxee nag stratégie bi dafay yaatu ñëpp a si bokk secteur public ak privé ñëpp si bokk parce que xeex bi ñun ñëpp ko war a xeex pour gagné ko. suñu demee ba ba ba vaccin bi law ba ñëpp am si nga gis feebar bi ñuy wax Covid. di rey. Mhm. nekk une maladie bénigne su boobaa day ñew rek jàll ko dootu mun rey kenn. ak bu mu ci mën di doon dem ñàkk ji moo gën a yomb tëju vingt une heures tijji cinq heures du matin. waaw kañ mu ngi non mu ngi lay gërëm bu baax baax. docteur docteur Yérim Diop gërëm na la bu baax. yaay directeur de la pharmacie ak médicament ci ministère de la santé gërëm it docteur Amath Niang président ordre des pharmaciens du Sénégal moo ubbi woon waxtaan wi. gërëm leen ci li ngeen ànd ak rajo Futur Media mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne woon Ba ci machine bi réalisation la Hadj Ndiogou Diène régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw service digital Soxna Yacine Pouy ci kanam tuuti da ngeen ànd ak Soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge